yomb ci yow nga mën koo roy te boo ko royee rek ci yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la lay yóbbu ñi fexe ba dëppale suñuy wax mu dëppoog suñuy jëf cheikh mohamad al misri waxoon na ne la amruka ma xubbul xalili bi annatin wala zafratin kalla wala fayda abrati ñu wax ne mbëggeeli bàyyi duwul rek binni duul rek jooy duul rek ay ronkañ ndaxam mbëggeel dana waral loolu yëpp waaye bugg nga wane ne mbëggeel gi ëpp na loolu faw mu ne ñi góorgóorlu bu fadlu góorgóorlu ci xidma boo xam ne nii dafay sax waxtu wu nekk ak njëkkalante ak rawante ci bunt boobu nga xam ne kenn texew ci yoon wi ñi nekk lu may ci bunt boobu la texee ndax sëriñ si ñoo wax ne xidmatul muridi sullamuhu ilal muraadi ñoo wax ne xidmaay taalibe bi moom mooy escaleem yi nga xam ne ci lay éegee ba àgg ci lim bëgg lef yi ñu nekk tim ñafa raw yépp mooy ñi nga xamoon ne ñoo raw ci liggéeyal bàyyi bàyyi ci boppam wax ko ci buntab laaya biir ne inna alladina xadamu ni naalu muraadahum ñi nga xam ne xidma nañ ma jot nañ seen bëgg-bëgg ci texe ci àddina ak sax alal ku dund da gis ku dee da nga dem ci texe loolu la mag ñi fi jiitu ci loolu lañ nekkoon tool boobu mooy seen tool bi nga xam ne garaat yi ñu leen ràngal tey yépp képp kuñ ci tudd nga ne eskay waaye liñ am yépp ñi ngi ko amee ci bëgg bàyyi ak liggéeyam bunt boobu nag ba léegi tëju bokk na ci ñooñu nga xam ne ñoo jiitu woon ci lef woowu yaral leen boppam méngoo seen mbir ci boppam ku mel ni cheikh alhaaji aboubacar dal musanna muy cheikh sëriñ mbay mi nga xam ne tey jii moom lañ jagleel bés bi tuddee ko ko ngir fàttaliku ko moom waaye tam ngir fàttali eh, taalibe yi mag ñooñu nga xam ne dëgg-dëgg àndoon nañu sëriñ bi démb yoon wañ jaaroon ba jëriñu ku bëgg a jëriñu tey ci yoon woowu ngay jaar dafa mel ni loolu lenn la ci junj yi waral sëriñ bi tànn jël ko moom nga xam ne moom mooy zikrul faydati jël ko tuddee ko bés bu mel ni bés bii nga xam ne xam leen ñoom bokk na ci xambaay te jotaay bés bii li ci ëpp mooy jéem a jàng Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu jàng siiraam jàng yoonam jàng yaram jàng ñim ak nañ mel ak ni mu bëgg ay taalibe mel buñ jëlee exemple yu mel noonu indi ko ci kanam mbooloo mi mbooloo mi dañ ci gën a mën a jëriñu pour ñi xam ne dañoo war a roy ci ñoom ba tey mu ngi wax ne di fàttali ci semaine yu passé bu yàggul rek muy le set ci weer wi passé sos nañ benn pont benn gees pour xidma projet yi pays bi ci ndigali sëriñ bi moo ñu jox ndigal ak ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñun ci borom xel yu sel yi ak ñi nga xam ne seen xel màcc na ci liggéey ci xaalis ak ay banquiers yi ñu ànd pour sos kees googu nga xam ne dañ koo sos pour continuer liggéey yi xadara bi nga xam ne nii xam nañ ne musta dagg waxtu wu nekk mu ngi continuer mu ngi avancé gannaaw buñ defee ay waxtaan jël ndigali sëriñ bi wax ko ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ponki xadara bi ñëpp ñi rafetlu ko def mubaaraka kees googu it mu ngi fàttali taalibe yi pour ñi xam ko bunt la pour def lu baax bunt la pour xidma xadara bi ndax xam nañ ne démb mag ñi dañ doon defal ay tool di ko defal sëriñ bi pour xidma tey jii nag ñu bëri xamuñ fu tool féete àddina bi dafa changé li muy doxee changé kon niñ war a def pour xidma suñu xadara ci jëfandikoo jumtukaay yu bees yi ak yoon yu bees yi pour mën a jëriñoo loolu nu mu gën a rafetee te lépp ci dundale rek la ci yàlla te yàlla wax na ne ku dundale loo mën a dundale ci yàlla rek yàlla dana la ko wutal te yàlla moo gën ci way wutal yi fayda bi dafay avancé musta taxaw dara wàññeeku wut waaye waxtu wu nekk nag yàlla mën na mën nañoo baaxee ci barkeeg ñi nga xam ne ñoo nekk ci kanam ak seeni effort waxtu wu nekk ñi gis tim yeneen yoon yoo xam ne dañ koy def pour sotti ko ci li nga xam ne nii moom lañ ci fekk ci ay xidma yoo xam ne nii war te taxaw ndax ku nekk rek war nga lii liggéeyal bàyyi ca la nga man ci sa xam-xam ci sa am-am euh, nose dafa baax ndax dafay gën a taaral caq te caq bi bu tasaaroon kenn du ko tuddee caq waaye buñ ko nosee rek mu lay tudd caq noonu la organisation mel te àddina bi dafa laaj loolu te lépp njëriñ bi nag ci taalibe yi lay delluwaat muy wax wax li nga xam ne bàyyi bindoon na ko xalifaam Seydi Ali Cissé di ko wax ne ko na nga xiir taalibe yi ñu liggéeyal ma te loolu ma lay wax njëriñ li duur na ci man lay dellu waaye ci ñoom ñi may liggéeyal ci lay dellu te amul karaama bu gën a màgg liggéeyal ma ci xàqi koo xam ne yàlla ubbi na sëb ci xol waaye yàlla xiir na loolu ngir cër yi wutee waaye képp koo xam ne gàttañlu na ci xidma ci liggéeyal ma dana réccu dana réccu bés bu demee ba leer ko ne lépp ci sama loxo la nekk kon nag ci fegal ñi loolu ci bunt loolu la sëriñ bi joxaatee occasion pour ñi ubbi bunt bi nga xam ne benn la ci buntu xidma yi waaye yeneen bunt xidma yëpp ñu ngi fi des waaye moom la nag buñ agsee fii ñun ñi nga xam ne ñoo doon yëngatu ci kees boobu ci diggali sëriñ bi danañ ko gën a leeral ndax dañoo oote ubbi kees boo xam ne ubbil nañ ko ñetti compte ci ñetti banque yu uute yoo xam ne ku am numéro compte yi foo mën a toll tey jii ci àddina bi bu la neexee mën ngaa def sa participation idée bi bu jiitu mooy dañoo bugg a am 1000 taalibe baay yoo xam ne ku nekk mën ngaa joxe 1 million ci kees googu loolu buñ ko amee milliard lay bu ko defee loolu mu nekk loo xam ne mooy mooy laytaay son boobu nga xam ne luñ bugg a liggéey mën nañ ko cee def du tere am na yeneen catégorie ñoo xam ne ñu mën a joxe cinq cent mille ñu joxe ko ñu mën a joxe deux cent cinquante mille ñu joxe ko ñu mën a joxe ba cinquante mille ñu joxe ko compte ci banque yi yépp am na mu ci internet bi waaye danañ ci def yeneen occasion yoo xam ne nii dañ ko gën a tasaare pour nit nekk bu la neexee mën ngaa jël sa xaalis dugal ko ci loolu boo jaaree Medina yi mën ngaa boo jaaree ci Serigne Mbaye Cissé wala nga jaar ci man ba tey Dakar boo jaar ci Amadou Samb wala Lamine Lo wala Met loolu lañ jaale ba ba ñuy defaree euh, lëñ na mi nga xam ne nii ñoo koy amee fu nekk waaye fiñ tolloogum euh, amagum nañ lu mat li ñuy wax nii amagum nañ lu mat 130 yoo xam ne nii euh, participer nañ ci loolu kon ñu ngi oo ñëpp ñi participer ci loolu te rawante ci loolu te waxul million sax dañoo wax million xam ne mën nañ million minimum waaye ku ku ku mën cent million tim bismillah waaye euh, liggéey bii daal liggéey bàyyi la te euh, Cheikh Serigne Baye li ñu tuddee bés bi doon na wax ne nit ki lim am ci lañuy ñuy xamee li bëgg yal nañu yàlla dimbale euh, saxal ñu ci xidma Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu may ñu as fi mahabbatihi may ñu ci liggéeyal ko ñu ngi dellu di ñaanal sëriñ bi yàlla yàggal ko fi matal ay sëmbam yàlla wëttu ko wëttu ay rakkam yi nga xam ne ñu ngi di ko jàppale ci liggéey yi nga xam ne moom mooy liggéey xadara bi ñu ngi yàlla dëgëral leen may leen tal bàyyi leen ak seen xel yokku leen wér dimbale ñu ñëpp yéen ci lim bëgg ak ci lim gërëm may ñi nga maane Mawlana Cheikh radiallahu anhu salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu